Euh, conseil départemental de depuis la euh, commission euh, pour préparer votre budget bi d'orientation commission yi commission pour pour ñu Nous avons projet de budget Nous avons présenté projet de budget Euh, conseil bi voté ko ñoom ñëpp ko voté kenn kenn desu si di leen di leen sant di leen gërëm ci loolu euh, ci seen taxawaay et ci seen pas-pas pour vraiment mbuur ak population yi nekk ci euh, ci développement bu bu bu mucc ayib. waaw comme ni nga ko gisee rek perspective bi d'une conseil départemental de Mbour comme que ni ngeen ko gisee rek boobu ñu créé acte trois créé conseil départemental ba léegi dafa dekk ne chaque année rek. moyens ñu ngi yok nank-nank mais ba légui moyens yi doyagul donc ñun ni ñu ko gisee motax ñu def ay luñ nane jox ay priorité yenn yenn yenn compétences yi nga xam ne ko transférer moy éducation ak santé ñëpp xam nañu ne éducation dafa nek lu am importance ci réew tamit ku amul wërgu yaram tamit do xalat sax ay yenen mbir yi donc loolu tax ñu jëloon ko def ko ay ay priorité boobu ñu ko defee nag euh, priorité yoy donc suñu budget bi plus de 80 pour cent yëpp lay jëm mais ren tamit ci loolu perspective yi dañ doon dañ ay salle de classe di defar ay di def ay murs de clôture mais cette fois ci conseil bi dafa né dañuy euh construction salle de classe yi jéem def ay clôture yi murs di clôturer école yi parce que école yi soko ko rules insécurité bi xalé yi am euh baxul ci ñom et puis euh, xari di dox ci biir école beeg et puis ñu fay sànni ci ay mbalit lolu la ñuy bañ motax ñu def né foofu moy d'abord nañ fexe ba am clôture yi euh et puis tamit di defaale tam lu ñu naan bloc sanitaire parce que tamit école yu bëri amuñu euh foo xalé yi di mëna euh défé seen i seen i seen besoin et ça c'est pas c'est pas normal